fallu mom senegal gep ko wara sargal ndax bamuy liggey senegal taxul muy liggey ken doyalul ci mom la kon buñ gisé ci jëm ji daf ñuy soññaat bu baaxa baax nañu lepp luñu xam ci wolof ci mom lañu ko jànge fu ma toll dama nan sama maître euh, baat yu may jox sax lay jëfandikoo ci yu bëree bëri nga xam ba li ci muju mu saan def revue de presse dama koy wo mané ko déglul ma wax ma waxé ma wa dugulat baat bi jénneel baat bi dugulat baat bi jénneel baat bi ma dor ko def jàll ko ci radio nga xam ne moom moo ma ñemeloo ci lu bari loo xam ne may jógee université Ndar jàng sociologie benn baa si taxoon la ma teg moo ma dalal baa moom laa njëkk defal loolu émission ci d'abord waaru biir te ma ko ndax lu ma xam ci wax ak wax yu wolof ci moom laa ko jàngee dem naa ba am yëg-yëgam moom yëg-yëgam mooy bu nit yàqee baatu wax dama ko yëg ci saa si maam ni ñu jàng français ak université ak ni ngi amee yëg-yëg ci boo defee fët dem naa ba am yëg-yëg boobu wolof ci ci làkk wolof man daf maa xettali daf maa dimbali boo tax fi mu ne keroog maa ngi koy wax ci DTV ci émission bu ñu ko doon defal ma ne man de sama yëg-yëg ci fàllu ak sama kóllëre àgg na ba ci lam daan bañ ma bañ la ko mooy maanaam ku yàq wolof ak ku yàqal wolof nga xam ne ngi toog ci jataay sax mi am nu mu baat ma ne ko déet defal nii loolu nag ma ci soññ suñu bokki taskati xibaar yi nga xam ne ñoom dañuy rajaxe wolof rek